pour la bonne et simple raison que ni man euh, dama yàgg euh, le pouvoir de Macky Sall bis buñu amé occasion yóbbu Ousmane Sonko prison dañ koy def loolu luma ma euh, gëm la té waxna ko waxati ko euh lima daan dute mooy euh, est-ce que dina jël risque yóbbu ko prison xam lan la mëna jur ci réew bi mais intention yóbbu ko prison moom mosuma ci douté benen bi moy tay ci suba wala man naa tay ci fajar bi may yeewoo gis les une des journaux gis le réquisitoire du procureur da ngay xamné bo xamé xamee ni yoon doxee ci réew mi da ngay xamné Ousmane Sonko su amé chance dëgg prison lay donc préparé woon opinion bi déjà. préparé woon opinion bi déjà et que Ousmane Sonko moom ci boppam euh, xamone na ne euh, fa gaañ jëm ak mom moo yóbbu ko yóbbu ko prison donc pour dire les choses honnêtement ak euh, sama jàngat mo ci def moy wax dëgg yalla li di xew ni amul dara luma ci bett Ousmane Sonko djugé woon na tribunal bu Dakar ma ngay ñibbi këram loolu moo ma doon bett mm-hmm. waaw mais mais tay xam naa ne bettu la li xew waaye nag njeexital yi né nga xeyna buñ ko tegee Lumu lu mu après euh, ci nga doon baye xel. Hmm. njeexital parce que Abdoulaye man dama gëm euh, le président Macky Sall euh, dafa def benn discours le 3 juillet suma djougul mhm. ci discours bobu ci la doon waxé né mom du nek candidat yokk ci né dina def lu mu pour que les décisions de justice. ñu appliqué ko bala fiy jógee loolu wax na ko ñëpp dégg bi mu ko waxee ñëpp ñëpp seen xel fi mu demoon mooy ci Ousmane Sonko mais dama bokkoon man ci ñu doon xalaat ne le président Macky Sall ak douze ans de règne nga xam ne bientôt mu jeex euh, mu ne du nekkaat candidat dafa am benn honneur bu ko yàlla may am benn euh, sag bu ko yàlla sagale mooy ce sera le moom euh, chef d'état sénégalais bi nga xamné moy jëk di organiser succession te du ju bokk. Mm-hmm. xam loolu bu la ko yalla jaglee la seule chose bi nga déssel sa réew moy dello leen réew min la joxone dans les mêmes conditions yi leen ko joxe yi la ko joxe won moy mm-hmm. réewum jàmm ak salam ñu dem ci élection wu ak salam kiy gagné gagné ñu jébal ko lenge yi mu doxal. Mm-hmm. ceci ne veut pas dire que ni su fekkee dafa am ay décision de justice yi ñu wara appliquer kenn du ko appliquer je dis pas ça mais dama yaakaar ne dama yaakaaroon. ne loolu moy li gën ci président Macky Sall te mooy li gën également ci Sénégal maintenant Ousmane Sonko placé nañ ko sous mandat de dépôt c'est un citoyen sénégalais comme tous les autres même même si xam naa dina ci ñëwaat léegi ci jàngat bi soo xoolee le traitement des affaires da nga naan yamale wuñ ko ak ñëpp. mais placé nañ ko euh, sous mandat de dépôt la justice est en train de faire son travail su ne tout de mais ce qu'on ne maîtrisera jamais yow doko maîtriser Abdoulaye Pierre maîtriser bu ni ñuy meun mënuñu ko maîtriser ñi jiite rew meun mënuñu ko maîtriser moy lan moy nek la réaction des partisans de Ousmane Sonko tout à fait euh fàtte ne Sénégal gi yóbbu nañ fi Mamadou Dia en prison mm-hmm. yóbbu nañ fi Abdoulaye Wade en prison

ak alors à sept mois de la présidentielle de 2024 Macky Sall si tout va bien mon la war réum Sénégal est-ce que de quoi jébbal réew mi ak héritage yu réew nous xam ne euh, ñu wax nous sommes complètement divisés fi les fi mu mm-hmm. réaction les réseaux sociaux déglu média on est dans un Sénégal très très très divisé le prochain président je crois que mérité nous nous ñu ñu jox Sénégal bu Sénégal il va passer encore du temps à nous réconcilier avant Mouy nous ci ci oui mais justement le 3 juillet vous ngay rappelé tout à l'heure le mm. président Macky Sall un message à la nation annoncé que ni du nek candidat gis mm. nañu tension ni mu mais bien sûr ba ñëpp pouvons ni war nañu euh, profiter ci euh, dégel Bob, ci vent de description mm-hmm. pour euh, mën aplanir les choses repartir sur de nouvelles bases Tay le fait que nous Sonko prison est-ce que vous allez attiser le feu. mais mais la tension va remonter. absolument kooku moom euh, du sama du samay du samay wax constat c'est les faits qui le hmm. démontrent. Hmm. parce qu'à chaque fois que nous nous convoqué Ousmane Sonko gis nañ li mu jur ci ci réew mi bi Ousmane Macky Sall defee son discours du 3 juillet euh, da nga maa la doon wax d'ailleurs Pierre si tu te rappelles maintenant la si Macky Sall annonce que ni du def euh, troisième mandat Sénégalais boo deful daal organiser carnaval. Hmm. parce que les gens seront effectivement. waaye exactement bim waxee ne. du nekk candidat les gens applaudir duñ ko parce que daf leen may dara wala dafa renoncer dara mais dafa dañ dañ ko applaudir parce que dañu dañu am soulagement mm-hmm. soulagement wu ne waa exactement daf leen fexal fexal bo boo dañ doon yaakaar ne bis bu waxee ne kan daal dinañ dem ci tension à partir de cet instant là da nga doon gis réew mi commencé wat la confiance euh, di revenir nit ñi tu retrouves les sourires euh, ñi meronte won sax ci seen ay digënté ak yoy nga gis ñuy commencé di di doomu bàjjanante nangam ak nangam en plus mu ni moom sa mère reste tendue exactement sa mère reste tendue et tout ça et quand les gens bi nit ñi liiree dans la presse que même tous des chefs d'état de la sous-région ou d'ailleurs euh, Ousmane Sonko mais euh, Ousmane Sonko euh, il va passer sa première nuit en prison la question que tu vas te poser moi, li Sénégalais yi espérer mm-hmm. depuis le 3 juillet. Mm-hmm. Bataille ñu à la fin du mois de juillet découragement indi déception man c'est ça qui qui m'inquiète un peu et quand je vois les images yi nga xamné mom lay laay gis ci ci réseaux sociaux depuis ce matin moi je je euh, damay wax très souvent que ni euh, ma réaction avec les réseaux sociaux mooy li ben journaliste tubaab di wax je ne partage jamais ce que je ne peux pas mm. vérifier. ce que je vois sur les réseaux sociaux mënu ma ko mënu vérifier mais en tout cas je vois des images de Dakar yo xamné c'est des gens tellement inquiet que ñu ngi obligé de tëj seen magasin yi di tëj seen commerce nit ñi obligé déjà ñu bëri dañoo ragaloon xëy sax exactement nit ñi commencé commencé commencé di ñibbi man mi euh, ci VDN laa jóge di ñëw hmm. mais sa xel du dal bi ma ngay agsi fi nga jëm parce que tu te dis à tout moment il peut y avoir des manifestations je crois que nag loolu mënoon nañ ko épargner Sénégal xam nga lu tax ma ma gëm ko mooy su fekkoon ne euh, Pierre dañoo euh, dañu dañu teg lu dëgër ci suñu loxo ne Ousmane Sonko mi lii ak lii ak lii la def su ko defee bu boobaa sénégalais dañ ñoom seen bopp ñoom ñooy àtteel Ousmane Sonko seen bopp gis nga bi ñuy poursuivre Ousmane Sonko pour viol ak menace de mort euh, bokkoon naa ci ci ñu doon wax ne bis bu àttekat yi prouvé ne que ne Ousmane Sonko violé na menacé na de mort mm. sénégalais seen bopp ñoo koy àtteel seen bopp ñoo koy bàyyil de la même manière tey jii nii koy topé bu fekkone lu lu deuguer la luñ mëna luñ mëna lu ci loxo sénégalais sen bop ñom ñoo nan ki nag ñu fonto mm-hmm. mais suñ né la dañ ko japp pour pour pour vol de vol de portable Ablaye mm-hmm. Ablaye bop mm-hmm. c'est c'est tellement gros de dire ça xaw naa reetaan lu eh, eh, lu ñu juggé ci lolu ñu né la le procureur dafa wane euh, une vidéo euh, bo xamné dañ ci gis Ousmane Sonko nous compiler plusieurs de ces déclarations yoo c'est des menaces c'est je ne sais pas moi hmm. euh, des déclarations yoo xam ne mën na mën hmm. euh, Pierre hmm on vit l'expérience tous les on jours. Travaille dans l'audiovisuel. On travaille dans l'audiovisuel. Ah. man ce que je suis en train de dire ici. Mm. Assane Gueye mee toog su ko 30 secondes yo xamné day complètement li nga les propos yu Ousmane Sonko wax yépp kenn parce que gis mm. mais tu imagines quelqu'un qui fait un discours d'une heure wala trois heures. Mm. di wax ak ay ay militants nga jël 30 secondes wala une minute daf koy génne ci contexte am. da koy génne complètement ci contexte am et yooyu je crois que àttekat yi aussi xam nañ ko beneen bi mooy euh, suñ ne ma euh, c'est une compilation de propos de Ousmane Sonko yu mu doon tenir depuis hmm. deux ans ou trois ans. mais ñun ñëpp xam nañ ne tous les Sénégalais yi nga xam ne ils se sont aventurés binde un seul mot de trop sur cette page Facebook. Hmm. wala ñu wane ci une photo wala ñu def une déclaration. à la à l'heure qui suit gars yi dañ leen pourquoi on a permis à Ousmane Sonko pendant des mois et des mois de faire ces déclarations là inquiéter Winko ko ça ça nous ramène li de de quelque part

alkati euh, nu ñu koy wax sax policier nangam ak nangam. buy doxal yoon du du kàmbal kenn. Mhm. da ngay def ñu jàpp la na le filé man man na le exactement man nañu dégg né Moussa su wàccee dafa am fu muy jaar té waru fay jaar ñu koy filé bam jaar fu japp ko mhm. mais dila tégal ben ndig ndigg pour nga daanu ci mhm. yoon du doxé noonu je suis désolé les gens yi koy wax man parfois su ma déggee ñu naan euh, piège Ousmane Sonko dafa daanu ci piège dama na mais attends c'est grossier c'est pour man c'est même manque de respect à notre justice que de dire que ni dafa dafa piéger nit la justice nekk fi pour di piéger piéger mais ko jëlé ci

Euh, justice je doon le blason eh, exactement gis nga loolu magistrat yi seen bopp xam nañ ne loolu lu war la avocat yi Ousmane Sonko yi wax nañ ko demb bop dama lay fàttali ne biñu jappé jàppee euh, Mamadou Dia Mamadou Dia waay euh, le procureur général Ousmane Camara bi nga xam ne moom moo doon def réquisitoire bi koy atté hmm. ba fi may waxee ak yow ni boba ñun juddooguñu hmm. néewul ne Mamadou Dia mi nañ ko tej nangam pourquoi parce que dafa jàpp ne jam yi liñ koy liñ koy toppee amu ci dara loo xam ne moom moo war a tax moom muy demandé naan nañ ko tëj nangam ba nañ ko tëj nangam. Mm-hmm. donc li ko toppoon da nga naan loxal politique jógu ci. fekke nga Ablaye Wade bi ñu ko fay jàpp politique mosu cee jóg mm-hmm. Idrissa Seck la mu chose c'est un problème politique ils l'ont réglé politiquement Karim Wade ci mujj nan lañ mujjee ak moom mooy mm-hmm. gracier ko yóbbu ko euh, Qatar ba léegi mënul des Khalifa ñeneen ak ñeneen ak bëggee ñun ñëpp te loolu malheureusement à chaque fois buñ on pense que ça ne concerne que les politiques mais dafa concerne chaque concerne chaque citoyen sénégalais parce que am justice bu woor mhm. justice bu woor buy dox ni mu war ni mu war a ñun ñëpp lay sécuriser mhm parce que ku ñu teg la ci yoon ku ñun ku ñu la justice mais su fekkee ne ñun ci dañu dem confiance ci justice bi nga xam la ça pose tous les problèmes et loolu du lu ci ci ci Sénégal parce que Ousmane Camara bi au Sénégal il y a pas une séparation de pouvoir il y a une séparation de fonction. Mm-hmm. oui le le le procureur de que je crois même wax propos euh, Ousmane Sonko daf en accord avec ses autorités ses supérieurs ça veut dire que quelque part quelqu'un qui est au-dessus de lui et pour moi, euh, les puristes du droit ils disent il faut couper ce cordon ombilical là dañ koy couper depuis les indépendants, mais rien à faire oui quand on est dans l'opposition, on montre les dispositions de, changer les choses. Mais une fois installé, voilà. Euh, Pierre, il ne faut pas couper complètement mm-hmm. le cordon ombilical, mais il faut faire de telle sorte que le procureur ait une indépendance qui lui permet, sous le mm-hmm. ministre de la Santé, par exemple. Euh, ah.